kon ak mbëggee la waraloon. bu sunu borom bëgg ruugoogee. bu mu njëkk koo wuyu la. mu njëkk koo wuyu. kon kon loolu ak mbëggeel la. kon loolu ak mbëggeel la. mu tekkee ni am murit nag moom. mu tekkee ni am murit nag moom. sëriñ ba sering ko sëriñ ba bëgg ko du ko tax a jëriñu du ko tax a jëriñu bëgg sëriñ ba ko tax a jëriñu bëgg sëriñ ba rek moo koy tax a jëriñu loolu daal sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon na ko ngeen dégg ko loolu daal sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon na ko ñu dégg ko noo ngi ñaan suñu borom dollil nu ko ay ngërëm moo tax bi sëriñ wootee moo bi sëriñ bi wootee nag dafa bi dafa bi nga ne nga am ne nga am boole la nga yor la nga yor muy ak bëgg rek muy ak bëgg rek lu waay am ci yoon wi lu waay am ci yoon wi sa bëgg la ko may sa bëgg rek la ko may waaye lu waay ñàkk ci yoon itam waaye lu waay ñàkk ci yoon itam sa bëgg la ko xañ sa bëgg la ko xañ bu sëriñ bi woote woon yoonu yoonu xalal bu sëriñ bi woote woon yoonu xalal faqir yi faqir nañ ci yoon bari nañ ci yoon lool kon duñ mën a kon duñ mën a wusi mukk mukk woote woon yoonu xam woote woon yoonu xam jaahil yi bari jaahil yi bari nañ sëriñ moom noppal nañu jàng sëriñ bi moom noppal nañu jàng ndax ki jeexal téere yëpp ndax ki jeexal téere yëpp moo ma gën a umpale moo ma gën a umpale ci ki dalul baax ci ki dalul baax kon ñi jàng moom génn kon ñi jàng moom génn nañ ñun noo jàngal noo jàngal waaye kon duñ jàngante ñun dañ noo jàngaloo waaye kon duñ ci jàngante ndax sëriñ bi moom noppal na jàngkat ndax sëriñ bi moom noppal na jàngkat yi jàng ba jeexal téere ki ba jeexal téere yi gën a umpale moo ma gën a umpale ki dalul baax ki dalul baax kon noppal ab jàngkat kon bu mu jàngal kon noppal na ab jàngkat ndax mbirum sëriñ moom néewul téere yi ndax mbirum sëriñ bi kat nekkul ci téere yi mu boote woon yoonu doole. bu woote woon yoonu doole. laay fi bari nañ. bari nañ. kon du ñu mën a ànd ak sëriñ. kon du ñu mën a ànd ak sëriñ bi. mu seet cër bu yomb boobu nag. mu seet cër bu yomb boobu. ndax ñëpp ko man ndax ñëpp ko man mu woote mu woote nag jëme ja. waaye man gi nag. waaye man gi nag. ci kaw ñu cëralee ko rek. ci kaw ñu cëralee ko rek. Mm, sëriñ bi neewul moxtaaru. sëriñ bi neewul moxtaaru. rek yem ca. rek yem ca. day ñaar day muxtaaru muxtaaru. dañuy muxtaaru muxtaaru. tànneef yun tànn laa yor. tànneef yun tànn laa yor. kenn tànnoon. kenn tànnoon. muy ki tax ñu bind lépp. muy ki tax ñu bind lépp. mu tànn ca lam yor nag. mu tànn muy muridulaay. muy muridulaay. moo ne am na lu ne ci biir. moo am na nag lu nekk ci biir. ku ñuy wax Serigne Mbaye Mbacke jaaxal. ku ñuy wax Serigne Mbaye Mbacke jaaxal. daa mas a dajeeg moom ci bisub bi nee na daa mas moom ci bisub tudd. Ah, dëkk bu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Mbar. Euh, ku ñuy wax Momadou Mbaye. ku ñuy wax Momadou Mbaye. rab rab. am na ñu ne fii ñoo xam ne xam nañ ko. am na ñu fii ñoo xam ne xam nañ ko. <coughs> taalibe Serigne Mbaye Mbacke jaaxal la. taalibe Serigne jaaxal la. wala boobu booba taalibe Serigne Mbar. wala booba taalibe Serigne Abdou Mbar la. dañu ko. dañu ko. man de Serigne Moustapha. man de Serigne Moustapha. xam naa ne sooyuma. xam naa sooyuma. ah Mbacke ku sooy du mel ni mu ne damaa gis lu baax lu nekk am naa ci. mu ne damaa gis lu baax lu nekk am naa ci. xam nga loolu ñëpp mënuñu ko wax. xam nga loolu day ñëpp mënuñu koo wax. mu ni. mu ni. li sunu borom bind. li sunu borom bind. doomu aadama doomu aadama ko ci gënal. te dara taxul mu gënal ko ci. te dara taxul mu gënal ko ci. lu dul. lu dul. li mu ko niroo lépp. li mu ko niroo lépp. ki tax mu bind lépp. ki tax mu bind lépp. sallallahu taala alayhi wa sallam. sallallahu taala alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. li doomu aadama yi nag. li doomu aadama yi nag. li ñuy bari bari. li ñuy bari bari. ñu ngi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ci gën a sunu borom. ñoo ci gën a sunu borom. loolu doyoon na. loolu doyoon na. mu ne nag ñu ngi si ñu ngi si yonent bi ci lislaam. mu ne ñu ngi si yonent bi ci lislaam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ñu ñu ñu wuy Sëriñ Tuubaa ci Murtulaay. ñu wuy Sëriñ Tuubaa ci Murtulaay. ñoo ci gën a Sëriñ Tuubaa. ñoo ci gën a Sëriñ Tuubaa. mi woote. ñoo ci gënal a sallallahu alayhi wa sallam ñoo ci gënal suñu borom ba tey loolu daal doyoon na ab jàpp ba tey ko mu ne ñëw Serigne Touba ci Mouride Laye mu ne ñëw Serigne ci Mouride Laye xam nga moom Mbàkke sant waaye teewul mu ni waaye teewul mu ni ñi ànd ak ñi ànd ak Cheikh Ibra Fall ñoo ci a Serigne Touba ñoo ci gënal yonent bi ñoo ci gënal suñu borom doyul di mu تمام سي ابراهيم سما مام دا سي مورتال يورن نسا ويجو دا سي مورتال يورن نسا ويجو دا خامني لي مي سانت سانت باكي لي مبوك سيرين توبا لي مبوك سيرين توبا

xam téerub Serigne Fallou Mbacké ba. loolee mu ne loolu la. ne xool ba xam. da ngay xool ba xam. niru nga dara yow. Ah, Serigne bi nee na loolu mat naa bàyyi xel de. ab Baye Fall la rek. ab Baye Fall rek. di jëfe nu ne. di jëfe nu ne. di waxee nu nu ne. te lu ca ne. te lu ca ne. teguwul ci wax de. ka tax naan Baye Fall. ka tax naan Baye Fall. lu yàlla bind bëgg na. lu yàlla bind rek bëgg na ko. lu baax ne. lu baax lu ne. bëgg na Baye Fall. bëgg na Baye Fall. ku neex li saxaar ak xolam. ku neex nag nga li saxaar sa xol. bu bëgg Baye Fall néew ci sa xol. bu bëgg Baye Fall néew ci sa xol. génn nga génn nga jël suñu borom gënal. nga xam ne yow génn nga jël suñu borom gënal. lam lam gënal moom génn nga ci yow. lam gënal moom yow xamal ni génn nga ci. ndax ki lépp gënal. ndax ki lépp gënal. Baye Fall la ko gënal. kon nag Baye Fall na seetlu boppam. waaye ab Baye Fall la rek. waaye ab Baye la rek. wax ko moom yomb na. def ko rek jafe. def ko rek moo jafe. am na koo xam am na koo xam ni. ca Touba ah, ba ba sëriñ bi wax ak moom ca kawar ga mu yor. ba sëriñ bi wax ak moom ca kawar ga mu yor. da ko ni. moo ne man de la.

te wax loolu wax na lu ñu baax ñëpp bëgg kan ko wax nag kan ko wax nag moo ca des kon moo ca des kon ginnaaw def suñu digal doon na tere loolu dal ñun jox suñu boppam ko teg waaye ñun kat wàcc na loolu digal def ko def bu ko bu ko mënul ko kooku wàcc na. nan koy digal ak tere rek. nan koy digal ak tere rek. waaye ka digle itam. waaye ka digle itam. wàcc na kat. wàcc na kat. <coughs> Ah, kër gi daa neex rek. kër gi daa neex rek. te ki ñuy wax ci moom itam. te ki ñuy wax ci moom. li ñuy wax ci moom di dëgg. ki ñuy waxal tam. ki ñuy waxal tam. li ñu koy waxal dëgg ñun. li ñu koy waxal di dëgg ñun. moo tax lu leen dolli ko ci. moo tax lu leen ñu dolli ko ci. góor soo xam ni. coono ba muy sonn. coono ba muy sonn. bu ci génnee. bu ci génnee. du sonnati ba faw. ba faw. soo see góor daal. lu mu defal sunu borom. lu mu te ku ne xam na ni. ka bind sawara moom. ka bind sawara moom. ba kenn ku yaakaar Sëriñ kenn ku yaakaar Sëriñ Tuubaa taxul. ndax ab yéefar. ndax ab te biir barsàqul moom it noonu ci Sëriñ Tuubaa rek ko mos a dégg dégguñu ko ci ab yonent du sa samaan du leneen luñ bind ak cofeel rek moo ko mënoon. day mel ni cofeel gën a moo féete kaw lépp. mun day mel ni cofeel moo féete kaw lépp. ndax mooy. ndax mooy. yitte ji kawe. yitte ju kawe. nga xam ne lu sa waaye am fa sa Lorak rek moo la nyak may. loo ñàkk fa boromam. ñàkk loola ko xañ. Serigne Touba Cheikh Lam dani. Serigne Touba daa wax ni. dara lu mënoon a ñàkk. dara lu mënoon a ñàkk. wala lu mënta ñàkk. lu ko ci àdduna. amul. lu weesu yaar yi. jamono. ak sallallahu alaihi wasallam. defar na jamono. defar na jamono. ba mu jag ba mu jag. mu lëggee rasulullahi sallallahu alayhi mu lëggee rasulullahi sallallahu ko ni ko. ba mu fayee ko ni ko. lu ma naroon def yaa ma koy defal. kon nag boo lëggee. ci wax Serigne Touba. Serigne Abdoulaye. ko am. Serigne Touba la jox. ku ñàkk it Serigne Touba la xëy. loolu da la waxoon ba ñëpp dégg ko. mu teg ca nag li waral. mu teg ca nag li waral. nuy naaf Baye Fall yi. nuy naaf Baye Fall yi. doonul ku ni Baye Fall la Baye Fall la rek. doonul ku ni Baye Fall la ka ko jëfe rek Baye Fall. ka ko jëfe rek mooy Baye Fall. mu ni. su baaxoon. lépp moom la ko Ibrahima Fall. waaye lu ci baax nag ñeel na ko. nga muy niru niru lu baax. dara niru ci Ibra Fall ndax dara niru ci Ibra Fall loolu baaxul wala baaxul fa yàlla loolu daal li koy firndeel da nga koy tàmbalee ci li nga nekk yow da nga koy tàmbalee ci li nga lu baax ci murid yi lu ne lu baax ci murid yi lu ne fa mu baaxee fa mu baaxee mooy Baay Faalum loola ku la gënal rek bu dee jigéen ñaa bu dee jigéen ñaa bu dee góor ñi bu dee mag ña bu dee ndaw ña da nga naan mooy sama Baay Faal loolu de moom moo am te loo te yemu ca nag. te yemu ca nag. tijaan ya. tijaan ya. xaadir ya. xaadir ya. laayeen ya. laayeen ya. foo dem fu ne. foo dem fu ne. ka leen gënal. ka leen gënal. mooy seetu Baay Faal. kon loolu moo firndeel. kon loolu moo firndeel. wax Serigne Touba jooji. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. lu baax lu ne. lu baax lu ne. bu ci dara niru Cheikh Ibra Fall. loolu baaxul de. moom nag ku ne xool rek loolu. ku nekk. bu dee weneen yoon la. bu dee weneen yoon la.

buñ dajee ba tas. te fàttalikuñ fa seen borom. jotaay baaraw medd ci ñoom. jotaay baaraw medd ci ñoom. jotaayu lislaam. buñ dajee ba tas jotaay ba. te fàttalikuñ fa seen borom. Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké nee na. jotaay baaraw medd ci ñoom. mooy murid yi nag. fu nu dajee fu ne. te fàttalikuñ fa ak taalu bi. jotaay baaraam métti ci ñun. ak taal bi nag mooy. jëfe lam digle. bàyyi lam tere. loolu dong moo di taal bi. jëfe ndigal yëpp. bàyyi tere yi. loolu de moo di taal bi. moo tax Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké nii. noo ngi ñaan suñu borom dolli nu ngërëmam yëpp. mu ne murit bu la mu ñee morom muritam. mooy lam ko gën a niru sama baay Cheikh Ibra loolu lay ñëwee morom ja ah, murit yi nag la waxal waaye waxut ak yi taalibe mooy talaba aji sàkku ju ab taalibe la tubaab ya naar ya talaba lan waaye nag sëriñ bi moom amut lenn lu mu dig ab taalibe ëllëg lu mu digee murit la ko dig waaye tuddul ab taalibe fenn de hmm, moom daal moom daal mbooloo mi fi daje mbooloo mii fi daje sëñ Mouhamadou te sëriñ Mouhamadou Ndiaye mii tax leen a jóg muy muy muy alali sëriñ muy alali sëriñ bi sëriñ baa ngi leen ci sant moom mi ngeen taxawul taxawaay bii bokk yëpp nag nu bokk mbokke rek ak fu mu bokkee tàbbi na ci biir kàddu yi bëggu sëriñ bi ngeen dapat defal te defe ko nag na ko bëggee taxawaay ba war ci dëkkandoo tak kam dëkkal taxawaay ba war ci mbokk ak kam bokkal rawatina yoon wii defe ngeen ko nu kawe njortam moo ngi ñaan sunu borom mi mu fay ñu nag ngëm gi fay. ki waral jotaay bii di Serigne Momadou Ndiaye. ki waral jotaay bii di Serigne Mohamadou Ndiaye. sunu borom ko nag ay ngërëm. àggale yéene ñu baax ñëpp ci moom. àggale yéene baax ñëpp nag ci moom. àggaleel ko yéeneem. àggaleel ci ñu baax ñi. Ah, lu baax daal. lu baax daal. ku baax donc baax donc am. Ah, loolu dafay nekk Serigne Mohamadou Ndiaye mii. bari bëgg la woon ku bari bëgg la woon jëmee ko sëñ bi nag loolu wala di naan sew yeel du tee wujje sew yeel du tee wujje moom loo néew loo néew néew doole moom loo néew néew doole defal na nga man defal nga man rek defal la nga am defal la nga am defal la nga am defal la nga man loolu kat lislaam moom moom yaatu na ñun lislaam ñoo fiir. ñoom lislaam ñoo fiir. waaye lislaam yaatal na lool. waaye lislaam moom yaatal na lool. am na lu Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou daan wax. wala boog lu mu waxoon. du ma fekk lu sunu borom yaatal. ma di ko xatal. kooku de moom bëgg naa dimbali. kon nag ñun murid yi tamit. ñun ñii noo waaye Sëriñ Tuubaa yaatu danoo bëgg a moomale li sëñ bi. ndax danoo bëgg a moomale li sëñ bi. bàyyi la des bàyyi la ca des. te lépp la moom te lépp nag la moom. lu bon lu bon. sëriñ Tuubaa ko moom. lu baax sëriñ Tuubaa moom. ku moom addina ak alaaxira. la ca bon la ca baax la ca bon la ca baax lépp yaa ko moom. sëriñ bi moom lépp. day fab lii. jox ñee. fab lee jox ñee. waaye moom moom lépp nag. waaye murid yi nag ñoo tooñ. ndax noo bëgg. moomale ko lii bàyyi lee loo gis murit bi di ko doyal di ko xeeb di ko xeeb di ko tooñ di ci yàq moomalewul loolu sëriñ Tuubaa ndax yow daal lu sëriñ bi sax nanguwoo koo joggi nanguwoo toog ca lay taayam ja kon leneen loo yàq doya dal ko moomalewoo sëriñ bi loola loolu de la waaye boo moomalee sëriñ bi lépp loo gis rek defar ko

tàllal loxo rek wax la mu bëgg waaye nongu ci koo bangee boole góor ñaa jigéen loo ñaan des lu de du nu yàlla de waaye def leen wax bu wér a wér a wér te ci ko nag ci sunu xol fu nu toll ak taalu bi rek moo mën jëriñ adduna ko laax saa yu fi sa kanam bi dañuy say wax di di ci jàng am jàngat mu bari ndax kàddu yoo xam ne lépp boo ko doon wëri ci ay téere da ngay dajale téeméeri téere am ci benn baat wala ñaar xalset nga guddul sam lef te doo dajale lu bari waaye ñu tënkal la ko nag ci jotaay yu bari boo seetee lii mu wax ni sëñ bi jiwut ab taaru bi dara ndax taaru bi moom mooy talaba rek talab mooy koy sàkku naar yaa koy sàkku tubaab yaa koy sàkku ñeneen koy sàkku waaye lu muy digal rek am murid la ko digal waaw ba noppi ni ab murid war a mel ni ab Baay Faal ma wala wala war a mel loolu nag tawfeex la maa ngi lay wax léegi ne nun day dañoo bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall lool loolu nag suñu waajur sëriñ Bay Baas yal na ko yàlla doolu yërmande moo ci nàmpatal doom yooyu teew koy bëtu maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tudde woon ci kër daf daan wax ne hmm. Cheikh Ibra rek ma saf bu hmm. mas naa nekk ci liggéey bi hmm. day wax ne sama xol bii moom rek ci nekk waaw moom rek ma saf waaw loolu loolu loolu daf ko daan ko daan wax ci suñu nopp lu bëree bëri bëri bëri nag moom ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm déglu nañu euh, it ay kàddu yu bëri am na kii di bu ñu waxtaan bis ñu waxtaan ci ab taalibe bi ba yàgg mu ne li mu doon defaat woonoon ma diw ma wuyu ko ma na nga xam ne yoon bi ñi nangoo doon ay taalibe ñoo koy mujjee ñi nangoo doon ay taalibe ñoo koy mujjee gërëm hmm. kii hmm. waxaatoon ne ma si mu doon defal nee na ma ah. xam nga lu dee ak ci faroo waaye fekk mu ne ma ak defaru mooy lépp loo romb mu jëm. waaw loo romb mu defaru. waaw loolu de maa ngi lay def kon xam léegi. waaw day day waaw sëriñ bi. dafa am ku ñuy wax suñu maxtaar Mariama si. sëriñ bi nee na dafa am ku ñuy wax suñu maxtaar Mariama si. daa wax suñu mu doon defal ne ko. xàmmee ko defaru. xàmmee ko defaru. du wilaaya. du wilaaya. sëriñ bi kon ndax lan. sëñ bi ne ko ndax lan. mu ne ko ku nawul dara yàqu rek. ku nawul dara yàqu rek. ku defaroo ku defaroo ngoogu. xam nga loolu du wilaaya. kon loolu du wilaaya. loolu si Moussa Mariama si. loolu si Moussa Mariama si. moo ko moo ko wax si Moussa. si moo ko xam si Moussa Binta. xam nga xam nga dund si Moussa Binta. waaw kon waaye si Moussa Mariama. si Moussa Mariama moom moo nekk loolu yi. moo nekk loolu yi. dafa ni. da ko ni. xàmmee ko defaroo du wilaaya. xàmmee ko defaroo du wilaaya. ku nawul dara yàqu rek. ku nawul dara yàqu rek. ku defaroo ku defaroo ngoogu. loolu dama tuddal bay xam. loolu moom waaw. ba pare daa daa daa ci dolli loolu. daa ci dolli loolu. loolu léegi ñu la suñu mbëri nee na loolu léegi ñu la suñu mbëri amit nee na sarafal nee na sarafal nee na xam nga suñu mbëri nee na rek moom doy na xam nga suñu mbëri amit nee na rek doy na ndax li mu wax bari na ndax li mu wax bari na waaye boo ci tegee suñu mbëri nee na sarafal nee na waaye boo ci tegee ne suñu mbëri amit nee na sarafal nee na rek laam laam boo ko déggee laam boo ko déggee bu ko bu ko nangu sa xol bu ko nangu sa xol dégg sa laam sa nopp rek dégg sa nopp rek waaye muslam waaye muslam suñu mbëri du muslim wax mukk ci àdduna suñu mbëri du muslim wax mukk ci àdduna sarafal nee na ndax su doon am ndax su doon am am na ñu ma àndal ñooñ am na ñu ma àndal ñooñ yàgg na moom yàgg na ñoo moom kon déggu kon du dégg ko waaye mosu ko dégg waaye mosu ko dégg nag dana dana sama njaay nee na sama njaay nee na la ci ëpp la ci ëpp muy suñu mën ñaan nga xay moom moo rakk suñu mooy juróom muy suñu ko mel mi nga xam ne mooy rakk suñu soxna bi te mooy juróom wala mu ni wala mu ne sëñ Ibrahima Mbaye nee na sëñ Ibrahima Mbaye nee na na nangam Serafal nee na nangam kenn daal rax ci kenn daal rax ci lu mu waxoon muy sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Mbaye guy ngéen sëñ Ibrahima Mbaye guy ngéen waaye dong nag. waaye dong nag. lan ma sa dégg. lan ma sa dégg. suñ mu rëbbi suñ mu rëbbi ne. nee nañu. nee nañu. Serapal Serapal nee na. lii nag moom si si mu daa ko wax. lii nag moom si mu rëbbi daa ko wax. moo ni. moo ni. sëñ Ibrahima Mbaye moo ko ni. sëñ Ibrahima Mbaye moo ko ni. sëñ Ibrahima Mbaye. sëñ Ibrahima Mbaye. mi ko doon jàngal alxuraan. mi ko doon jàngal alxuraan. moo ko si Cheikh Fall Baye Góor. moo ko si Cheikh Fall Baye Góor. magam ju baax joojee. magam ju baax joojee. moo ko ni. moo ko ni. sama sama am dani ma. sama am dani ma. Ibrahima Mbaye Ibrahima Mbaye ma ne Fall ma ne ko Fall mu ne ma jébbalu rek doy na alxuraan mu ne ma jébbalu rek doy na alxuraan sax ci ndigal doy na xam-xam sax ci ndigal doy na xam-xam joxe saw ñàq doy na diine joxe saw ñàq doy na diine dé dé seen wax loolu si mën daa wax loolu si mën daa ko wax ne ko ne ko ci jàng ba jeexal téere yi ci jàng ba joxal jeexal téere yi te du jëfe liñ digle te du jëfe liñ digle du bàyyi liñ tere du bàyyi liñ tere ana ku mu raw ana ku mu raw yéemoo kenn mu ne ko kenn faal. mu ne mu ne ko. ci dalul baax nag. ci dalul baax nag. te du jëfe lu diglewul. te jëfe lu diglewul. te du jëfe lu diglewul. te du jëfe lu diglewul. du jëfe lu ñuy tere. du jëfe yëpp lu ñuy tere. ana ko raw. ana ko raw. mu jaar fam jaaroon. mu jaar mu jaar fam jaaroon. ne ko kenn ne ko kenn. loolu si la wax. loolu mu ne ko wax. xam nga te te wax si moom day yenu maanaam. wax si si dafa day yenu maanaam. xam nga dëgg-dëgg ab saay-saay. xam nga dëgg-dëgg ab saay-saay. day jàng ba xàmmee dëgg fen. day jàng ba xàmmee dëgg fen xàmmee yoon ak ñal ya. xàmmee yoon ak ñal ya. xàmmee leer lëndëm. xàmmee leer lëndëm. bàyyi fa leen digle. bàyyi fa leen digle. def nañuy tere. def nañuy tere. ab saxaar di jàng di. ab saxaar di jàng di. waaw ndax xam nga ne ni hadis bi misaal la xam nga dëgg dëgg yéefar. dégg nga ne hadis bi misaal dëgg dëgg yéefar. day julee ko woor. day julee ko woor. daaj màkk daaj màkk. dina tas dina tasaka. waaye xol ba fees dell ak. waaye xol ba fees dell ak. bañ lu baax bañ lu baax ak bañ yu baax. ak bañ yu baax. lan la yéefar di mel. lan la yéefar di mel.